ñi mu àndaloon ci xeex boobu ay rakkam lañ te nag daf ñu jàngal de moo ñu wan yoon li ñuy def lépp moom Ousmane Sonko moom moo ñu wan yoon wan nañu yoon bi xam nañu ni ñu koy defee grand frère li nga ñu jàngal mokk na yéene bi nga amoon Pape Djibril yaa ngi koy junjulee. te dañu gis Bougane Gueye Dany ça aussi je dois le dire mu jël ay xale parce que nee na moom dafay xeex chômage mu jël ay xale employé leen xëy dàq leen de façon arbitraire parce que tout simplement dañu bëggoon a créer syndicat xale yooyu yóbbu ko inspection du travail daan ko yóbbu ko tribunal daan ko. li et c'est une faute pour moi de pour que je commettre tu ne peux même pas tu ne dois même pas prétendre à une commune ou à une région Moi, mënuloo dàq ay de façon arbitraire et tu changes les contrats parce qu'ils avaient des CDI nga yóbbu niveau stage ne moom la ñu am ñu gagné du travail gagné la li nga aujourd'hui Nous avons une cassation ça aussi en tant que d'abord je suis très sensible et très touché parce que je suis un jeune comme eux je suis journaliste comme eux suis un ko waxul dafay nuru leneen. waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am nañu mos nañu continuer noonu loolu dina jeex ci réew mi wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko dina jeex réew mi naa leen ko grand théâtre nañu mos nañu continuer noonu rek. allo. <laughs> ziare wala kano ci lu ngeen ne bàyyi yéen a ngi si jàmm bu baax a baax a ngeen kàddu yi nga xam ne nenu baxal yëkkati na ko nenu baxal nak moom nii la nar a ci mi nenu baxal nii la fi nar a ñuy ñaan rek di commencé di ñaan rek nenu baxal li nga xam ne la nen ngay nii li nga xam ne la tàmbalee ñu ndax wax lu dugg ci sénégalais mënut a wax lenn lenn lenn dugg ci bopp Sénégalais yi. ñu nekkee waa kër Sonko ñoo tay ñoo tay. ndax nag dañoo war a xam ne Sénégalais yi dafa am ku ñu bëgg te kooku la ñuy topp toppuñu kanam bu fekkee ne Net Gaye mi dafay nekk di wax waxi doxam ñu jàpp ko di ko tëj ci kaso bi wala ñu naan convoqué nañ ko ma ngay wuy ji loolu te yóbbu Net Gaye foo xam ne yëggu fa te yóbbu Net Gaye foo xam ne yëggu fa. yow bugaan bu la wanee ginnaaw nga defe ne cœur brisé la jóge ah bi yow koo xam ne xamoo biir beeg taar yu la ci ëpp. ñu ñaan ci njëkk nen ngay mii nañ ko bàyyi muy wax ay waxi dofam ndax nit ñi nag maanaam foofu lañ ko féetale waxi dof bañ nañ ko ba sax moom nen ngay mii mooy jiital dof yi comme xam nañu ne nag nen ngay mooy jiital dof yi ba nit ñi xam nañu ne ne kii waxi dof lay wax ay nen ak ay ginaar ak yooyu noonu ñooñu nañ leen bàyyi te bañ leen a yëkkati ndax yenn yi maam yëkkati nit ki la te nen ngay mii foog naa ne bu doon wax bay wéqu tamit kenn waru koo faale te gars yi bu ñu fàttali ne dañoo jug ci ay élection te gis ngéen li nga xam ne nii moom lañu commencé di nekk di wej weji di bari wax nit nag buy wax doo ko may lu wax nga xam ne moo di nen ngay gis ngeen ko génn naan na di wax waaye ba tey li nga xam ne moom la wax rek moom ci boppam ki nga xam ne moom lay roy nekkiwul woon fii doon di def nii muy def nii Ousmane Moussel ndax mom ci bopam wax nako neena ki di Ousmane Sonko da leen a premier ministre bi da leena jangal nan lañu opposé wu. ta nak daf ñu jangal de moo ñu wan yoon li ñi def lepp mom Ousmane Sonko mom moo ñu wan yoon bi. te gis ngeen ki di Ousmane Sonko musta wax waxi dof wala mo jégué ko mom nak waxi dof la bëgg jël ak jëfi dof ànd ak i dofam ñi nga xam ni waxal lool nak nga xam ne kii waxi dof la wax ñaan da nga waxi dof la ñuy wax foog naa ne ñi nga xam ne nii maanaam ñoo nekk ci dëgg yor dëgg ànd ak dëgg ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom la askan bi àndal ñooñu war nañoo xam bu baax a baax lan lañ amee waruñoo yëkkati kenn di ko fësal wala ñu yëkkati kenn di ko wane nenu baxal nii mënut a wax lenn loo xam ne nii dina dugg ci bopp Sénégal <laughs> wala Kano. li ñu waxal mënut a wax lu dugg ci bopp Sénégalais ay ngooñ ay teer maanaam ne lu baaxal moom na seen xel dal ci moom kii mënut a wax lu dugg ci bopp Sénégalais léegi nag lii bu yàggee da koy yëkkati wala mu ko foo xam ne ñu yóbbu foo ñu ñaan ci njekk rek ñu bàyyi leen lu baaxal mais mu wax waxi ànd ak ay dofam comme moom bañ na ko ba sénégalais nangu nañ ne kii mooy jiiteel dof yi nañ ko bàyyi moog ay dofam ñu wax lu leen neex ci réew mi. comme ñoom loolu lañ bëgg di wax waxi dof ñu di leen jàpp ñu naan jàpp nañ kii jàpp nañ kii nañ leen bàyyi ñuy wax seen waxi dof waxi dof yi nag na am foo xam ne ni fa la yem na képp koo xam ne dañoo dëkk di wax bis dana ñëw nga wax loo xam ne ñi àndoon nag dof yi àndoon nag yow sax da leen taxaw dar seen gémmiñ ne wax nga lu ëpp bàyyi leen ko loolu muy wax waxi dofam bu ngeen ko jàppale di ko may yenn yi quoi vraiment lii nga xam ne nii am na ko nii mënoon naa ñëw donte waxi dof lay wax nag may leen ko batmaa dina wax nga ko tëj dina wax lu ko tënk ñam na ko dem ko njëkk nag ci yooyu gars yi ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye borom def gis wala kano namoon nañ ko torop nag moom nag ñëw na tey eh, ñëwaat na ak doole ci kii da xorom xaat dañ ngeen xorom xaat moom li nga xam ne moom lay yàkk ak wax di wax waxi dafa ko suñ Bara Ndiaye réglé na ko ci une minute la ko réglé gars yi ñu déglu ci Cheikh Bara Ndiaye kàddu yi nga xam ne ñu fësal na ko ci njëkk ak teraanga ñu teewlu jubante ñëwaat. ku bëgg a doon député daal ñëwal wax sa programme. bu ñu fi kenn wax sëñ Touba daa amee noonu ma bëgg falu. bu ñu ko kenn wax. waaw Karim Xurum Xaq nag boo ma ko mayoon. Karim loo moom laa doon rek xam nga Karim Karim sax Karim moom yàlla dogal na danaa ko nangul dara. Ah, ku gëm diine la. Mm. ku bëgg diine la. Mm-hmm. nee na candidat la dafa bëggoon a doon député pour xeexal diine ji. waaw nangul naa ko ko Mhm. waaye daa am benn conseil bu ma koy jëkk a jox bala maa ñëw ci Touba ji. mooy comme moom dafa bëggoon doon député. dem assemblée national def fa cinq ans di liggéeyal diine. yàlla sottalu ko. Mhm. dama koy ñaan mu far ko dem kokki mu dem kokki daaray kokki waaw def fa juróomi at yi mu naroon def assemblée. Ah. ndax diine kat ku koy xeexal da koy jàng. kokki pour mu ah, jàngi ah, pour waaw. Karim kat mënut a tari lu leer xamul dara ci diine te yow diine la ko yàlla nattoo kay mu bëgg ko lool. ba wax ci lay wax ku muy mere lay mere. na dem jang diine ji juróomi ati assemblée yim na a def wa wa wa xam na ne du khalis du dara gëm wallahi na gëm naa ne man dafa gëm diine bëgg nako parce que xam fréquenté nako ko mais comme dafa naroon def assemblée nationale 5 ans wut bu defé ko ak 5 ans bu génné bu wax ci diine kenn du ko wet mais diine ji bo démé ci seigne muntaha ne ko dama bëgg xéxal diine ci assemblée waaw sëñ Muntaxa mu ci koko xam moy wax duma duma def luma xamut hmm Muntaxa muntaha lepp lumuy def rek da koy xam ba bari mhm. ci xam-xam lay jital lepp waaw bu boo jógee dem day daal di laaj mustahin kii doon ñëw fii ne day xeexal diine ji moom kumu ñu ne ko kooku def rappeur la mu ne luy rappeur ñu ne ko waykat hmm. maanaam musicien la waaw premier problème am mooy ana musicien ak xeexal diine hmm. problème boobu la parce que yow man mënumaa nangu avocat yi ñi leen di xeexal dañoo ab avocat xam li ñuy def lay doon ordre de médecin médecin bu ko xam waaw euh, euh, maanaam euh, ordre de pharmacie pharmacien hmm. ah Eh, mbëri lamb yi sax mbeur na ñoo kaas. waaw diine ji mom manam yow ñi jangi diine ni mu ci rew mi Karim ne mom moy dem ensemble yor seen kaddu ta jango diine yow. Karim amul ben saaru diine wu mu tari. wala daara lu xam ci diine ji lu leer. ah bon ah, jangut di. waaw Karim lu jang jangut alcorane jangut arab comprendre diine amul ben texte l'islam bu mu xam ben fan gu mu leral amul. mën ta mirage mën ta jangale njàpp mën ta jangale julli amul lu mu leral a bo beugé kassal diine ak diine ana ñi ko jàngi woon waaye yow ñëw rek ak sa musóor naan sëñ bi jox ma 15 millions ma dem jàppale diine <laughs> sëñ bi du defee noonu alors ba pare di karim am na yéene ci diine ji hmm. karim day mel ne moom yonant la bu war a xool nit ñi kii diineem tane na kii diineem a ca topp kii diineem sàngara la tollol kii diineem meew meew mu forox lay tollol nangam ak nangam ku ko sant loolu hmm. mel ne moom yow yow da ngaa jag daal pare ka waaw dégg nga naa ci suba ngay souligné naan nee na jàppale Ousmane Sonko duñ ko critiqué ndax ay dañuy jaay seen bopp. Mm-hmm. kon moom daa jaay daa jëratul rek ndax ñoo doon ànd di la jaay <laughs> kon ñun ñëpp ko waxee na ma ko moo wax caga la wax <laughs> dane ñun ñiy jàppale Sonko. waxut caga buy jaay cëram. mais caga buy jaay làmmiñam la wax. kon ñun ñëpp ñoo doon ànd Sonko di ñu jënd kon ba yàgg moom jë moom Sonko soxlaatu ko rek. ñun ñu continuer di ñu soxla. Mm. kon kay mu waruñoo xas danoo jarta jëratut Hmm. parce que mak moma andone àndoon nguur bari ki ci election yi di jappale jomay waaw ñu pour ñu waté ko loola moom gëm la ko def légui bimu bayé jomay néna man man lamay def gëwuma ko man dañ ma fay xana dañ ko fayon waaw jarna di jënd de ah, alors nit da ngay Karim day day day vocal ay nit wala mu wola waaw ne la yow lutax do doo mës a critiquer critiquer ko hmm. suma waxtane diw ak diw ak diw duma tudd da ngay ne Karim wax na mako Karim wax na mako Karim wax na nga xam day day sensibiliser ñi chronique waaw pour que ñu dal ci kaw son hmm. waaw loolu dafa am lu ko jitu waaw muy lan Karim yor na mouvement. waaw di wax ci réew mi. di dox comme ni dafa nekk leader Sonko nekkul leader. Mhm. waa lu tax du woo nit ñi ne leen man critiqué leen ma. Hmm. yow ku la critiqué ngay bëgg a dee fii ne dana ma tontu dana ma dana ma wax lu ko neex. voilà ku la critiqué ngay say. ba pare yow maanaam denc sa bopp fële. waaw jël jaamuroom yàlla naan diw critiqué diw. yow do critiquer diw do critiquer diw yow da ngay ñëk a joxe sa jëm mhm. bu dee critique bi da nga japp né lu objectif la lu baax la da ngay ñëk a joxe sa jëm mhm. man Karim kat dama bëggon mam Biram Waaj Cheikh Ousmane Touré yeen ñëpp ngeen critiquer ma dal ma xam mhm. su ngeen paré ci man nak ba nga xam ne ah te critique ngeen ma paré nga né wa nga tek teg ci Sonko waye yow ni nga denc sa jëm ji né kenn du la critiquer ba nopi critiquer leen Sonko lool rek ab julit du ko def manam jul islam ju rafet mi ngi tambalé ci lo xamut bu ci wax te Karim xamul diiné xamul ah, diiné jàngu Hmm? ala di diine ah kokkay moom moom man loolu ñuy werante janggul Al Quran, dara kon daa war dem kokki na dem jàngi rek wala kano kurumtak demal kootu kopi. li la seex baara ngay wax dëgg la bu fekkee ne diine ngay xeexal wala da ngaa taxaw ne da ngay taxaw diine faaw nga jàng diine ba xam ko li leen Cheikh Bara Ndiaye wax du ay xas na du ay xas de li leen Cheikh Bara Ndiaye wax ku la bëgg dëgg moo la koy wax ku la bëgg dëgg moo lay wax li nga xam ne moom la la Cheikh Bara Ndiaye wax ne foog naa ne bu fekkee ne da nga ne yow diine ngay xeexal te yow xamoo dara ci diine xamoo ci dara xamoo lan la yàlla wax ak lan la waxul bu pare nga taxaw ne yow da ngay xeexal diine da ngaa bëgg a dem assemblée nationale nga xeexal diine. tekki nag osé eh, ba bëgg dee ne da dem ci suñu muntaxaa ngir mu <laughs> maam yenn sax ci ko maam di ko yëkkati di ko jëmale ci ay ñoom suñu muntaxaa ñii nii ci dafay diine yi wala nga dem Tiwaawan di ko wax yenn yi yabaate ñu koo paase dangaa war a xam ne bu fekkee ne wàllum diine la fii nga daw wut ci ñu la gën a jàngale fi gën laa xam te dañoo toog bu fekkee ne xeexal diine la rek dàqoo leen bu fa gën a xeexal diine daaxoo leen ko mais xorom xàq sa naxaate yi nga nekkee ak sa wër-wërloo bii nga nekkee ngay bàyyi kenn xamul loo bëgg billaay kenn mënut a wax xorom lii la bëgg kenn mënu ko wax mënoo ne diine lay xeexal mënoo ne Ousmane Sonko lay xeexal mënoo ne réew mi lay xeexal mënoo ne kenn lay xeexal bu waxee tey ba nga ne noonu la mu bàyyi daal di nekk ci leneen. bu waxee tey ba nga ne xurum tey li mu wax bu na ëllëgee day génn weddi ko ba mu set xurum mii ku ne la woon dana génn ne dana contre Ousmane Sonko ak ni mu àndee woon ak moom contre gi sax kenn ba ñu mais da koy teg ci maanaam da nga koy teg ci logique xoolal Ousmane Sonko ak président Diomaye yi ban fi nekk léegi ñaata mois ñaata weer nga bëgg fee génn bi leen contre te yow maanaam avant ñu fi am deux mois génn avant ñu fi am un mois génn nga avant ñu fi am un mois génn nga commencé dal seen kaw. ba pare ñu ne kooku bëgg na dara bëggul dara billaay kii bëggul dara bëggul dara kii mooy nit ku bëggul dara maa yow ànd ak nit xeexal xeexal leen nga àndandoo ngeen xeex bu ñu nekk au pouvoir maam ngeen toogagoo leen sax maam di jëkkati googoo leen sax mu commencé di la xeex lu tax mu du fi toog nangam nangam xorom yow li mu fi wax ba fi ñuy toog ak léegi maam dafa bari te mu yow leen sax ñu nooyi biñ ñu toogee ba pare nga ne yow bëgg nga dara mais bëggoo dara li la Cheikh Bara wax na dëgg la yow faaw nga dem Kokki euh, juróomi at yi nga xam ne nii moom nga war a am assemblée nationale comme yàlla dogal na ne demoo te amoon nga yéene ji da ngay doxantu ba Kokki nga am fa juróomi at yi jéem a jàng xam-xam bu baax a baax boo dematee boo waxee wax ju leer wala nga bind lu leer walla booy wax te nga indi ay aaya yu leer. boo dematee ci kilifa yi diine yi ñu mën laa teew déglu la waaye xurum lan la ñu ne rapport la xurum bu yem am na nag réew mi li dafa bari quoi kilifa ñu la bëggee jaxase law nga àndandoo kilifa yi diine ñu bëgg laa jaxase nga ànd ak imaam ñu bëgg laa jaxal maam day dem ba réew xam lu ku nekk loo doon xurum da war a xam ne yow ab rapport nga mënoo xeexal diine ab rapport nga. rapport nga boo bëggee xeexal diine da ngay jàng ci diine wala nga wuti ñu jàngal la ñu la jàngal la diine ba nga man comme li la Cheikh Bara wax nga dem kooku jàng ba xam boo paree nga soo a ñëw mais réew mi nag lii fi ne léegi nag opposé wu dafa neex ndax neex wax dara du la ci ngeen nen day mais li nga xam ne wax na ko Ousmane Sonko daanaka saaga la premier ministre bi saaga la waaye nag réew mi du doxee nii lii moom la Ousmane waxoon rek am na nañu ñam am nañu ñam ñeneen dinañ ñamaat comme nangu woo leen ne réglé waxoon na leen ko grand théâtre ngir lànk ne du ngeen réglé aja ci kanam rek yàlla ñu yàlla may xolu muñ gars yi mën a jàmmaar ak opposition bu bees bii fi nekk ak nga xam ne ñooy xeex nguur bu bees gi nga xam ne nii nooy yeegun ban fi toogee léegi sax ñu commencé leen a contre di wax ne lii lay wala leen kon yàlla ñu yàlla may xolu muñ te élection yi nga xam ne ni moom lañ jëm muy élection député yi yàlla may ñu ci ndam lu yaatoo yaatoo ragal féete nag day xañ a wërsëg lañ wax yàlla ñu yàlla defal jàmm te defal ko Ousmane Sonko premier ministre ak président Diomaye musal ñu ci lépp luy lore te defal ñu jàmm ak xéewal jaa ngeen jëf gars yi ngeen fàtte ni ngeen fàtte di abonné